allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. Modou Maram. Hmm. Cissé Kay Mor. waaw Cissé na ngeen def. salaamaaleykum. mbaa yaa ngi si jàmm. si jàmm waaw. Modou xanaa fa nga ne si yoonu luuma tey. yee luuma moo de. ah damu ne luuma tey. allo. man fa ñaan dem luuma. yéen fan mooy seen luuma bi luuma Njaa wala luuma Farafane wala Ndiba Njaa fan ngeen a demee luuma. bu ñu soxlawee ci ñun fu ñoo demee luuma amuñ bi boo ko ñëw yéen. waaw loolu kay am na déedéet déedéet waxuma ay bëri ban ban dëkk ngeen a demee bu leen bu leen gën a jege yéen luuma naan dëkk bi la ñoo dem ba la ñoo dem. daal luuma bu ne dañ fa ñu ne liggéey ji luuma laa wax. a bi ngeen bëgg a jënd dara ni ngeen a def. waaw li ngeen jënd yàlla ñu koy dimbale ngi ko am fi ñu dëkk bi. ah yéen a yéen a ko jëndee si biir dëkk bi. waaw. ah si biir Kaymoor wala si biir Kaymoor si boppam. dëkk bi laa la wax waa si biir dëkk ah de baax na moom ma ne. waaw waaw maa ngi jéggalu bu baax a baax si xaar bi euh, ndax euh, ni nga ko bëggee woon ak ni nga ko waaye dogalu yàlla allo. waaw kay ma ne ñu ngi jéggalu baax si xaar bi ñu ngi xaar. man a xaaru lan li ñu doon xaar laa wax. waaw déedéet ma ne ni nga ko bëggee doomu aadama bëgg bëgg na waaye yàlla mooy dogal. xaarab lan laa wax na xëy na bëgguñ ko woon allo. man a xaarab lan laa wax xaaru lan. ma ne ñu ngi jégalu daal si xaar bi xaar bi xaar bi. xaaru lan laa wax lan ban xaar. ah kon ne woon dañu xaar yow. yéen ñaan. ma ne ne woon dañu xaar. xa yéen ñaan. ah déet man ñu ma joxoon ba bi yàlla tey bi ñu ngi fi di. ñu nga joxoon lan. ñu ñu ñu ñëwoon si man dañoo bëgg fu ñu dem ba tey ñu ngi fi di. ñu ngi fan. yow fa nga am. ñu ngi fan laa wax. man am nga yow da nga am. am lan. xamoo surga am nga surga. yow yow dama la saaga de. déet déet waaye Mor yëti bu daw yëfi Saalum Saalum yooyu. Ah, man dama laaj déet déet waaye nga kay na ma waaw xam naa wala xamuma rek ah. ma ne. ah. boo may tudd sa tudd sa bopp naan ma suuf xam nga xamuma la kay ko ko ku la saaga nga bëgg rek. ah déedéet damaa laajte rek xam nga na ma waaw wala déedéet moo gën a yomb. ma ne yow lijjantiwuma yow loo am ak loo amul naan doo ma ba yow. waaw d'accord dama soxla sa dara. waaw baax na ma ne. koo xam sax xooloo ma koo xam ba da ko wut waaw waaw gàncax gu ma gis gàncax a daaw la gu ren gaaw na na de gàncax gi ma gis gu daaw wala gu ren. foo ko li ma gis kay ñu dugal xam na seen tool yi ma gis ñu dugal ndax loolu toolal daaw wala toolab ren la su ne sama gis loolu mën naa nekk. waaw ma ne foo ko gisee ku dugal doo ko laaj. waaw dama la laaj dama ne la seen tool yi laa wax seen tool yi la ma gis. laa gàncax seen tool yi da nga koo gis. déet ma gis ñu dugal dama la laaj ndax gàncax a daaw wala gàncax a ren. kan moo ko dugal kan moo ko kan moo ko dugal. man dama ko gis dañ ko dugal man nee naa fu ma toog lañ. ma ko àmba waaw kan moo ko dugal kanaa groupe lu moo bëri bëri da nga xam ne kii bi ñu yore moo dugal groupe bi wala jiw ñoo ko dugal. ah yéen seen tool yooyu ma gis laa sax gim sax loolu toolab daaw loolu toolab ren la ñu yor nii noonu. la foo ko gisee. ko gis kay. ci groupe bi gis naa ñu dugal ko. ku lu ku ko dugal. yow dugaloo fi dara yow. déedéet. ah xanaa ne woon si tool yi te ni ñu bëgg a gis tool yi. waaw man dugaluma la ko. ah. man de dugal ko. waaw loolu dama guddee dama ne ndax loolu gàncax daaw la wala gàncax ren damay laajte. waaw man maa ko gisut bëri ci préciser koo ren la koo daaw la. ah. Hmm, te bu dee bu dee koo ren man la ko lekk. waaw déedéet du keesoo lekk ak naan de man lekk ma ah, naan ma de de yenn yenn yenn yenn jëmm ñi da jàkkaarloo borom kay mënoo ko lekk. amul ah, jëmm ñu de damay laajte ndax gàncax daaw la wala gàncax ren man maay laajte. loolu kenn dara newut di wax dëgg yàlla. loolu rek loolu rek moo la xamal du la wax dëgg. Ah. ah yow nga ne béykat boo mag nga yaa bind. ñi ngay bind yaa ngi seen nawle yaay ànd. waaw waaw ah, nga daan daane yi daane naan ndax daa ren la daaw la. waaw dama gis affaire bi gaaw dama gis sunati gaaw gaaw ba wan ba wan daanaka sunati màgg ak man. gaaw màgg bi gaaw loolu moo tax. ah. allo Modou. oy toppal. waaw ma ne ndax commencé ngeen Mor yow sa réseau bi fa naqari tey trop waay yow boo boo nekkee ci kay moom waxa yow fay xaw a jafe ma ne allo allo ma ne yow boo nee ci sa kay moom sa réseau fay naqari ma ne commencé ngeen du dëgg de man kay sama réseau bi naqari wul yaa naqari ma ne commencé ngeen laawa commencé nañ leen commencé ngeen allo waaw waa kay commencé ngeen bay suna moo di yow fa mel ni cere suukar nga bëgg a defar tey wala fa nga bëgg a ataaya. ma ne fa nga bëgg a defuma cere suukar laajal li ngay laaj rek man xiif ma wala lekk cere suukar. ah dégg kon ku lekk cere suukar dafa xiif waxi ma waxi xiif la dama ne ni gis ne heure bi bu ñu wàccaan nu ñu fay xiif ba nga xam ne cere jën a xàkki da sim da lekk. Eh. waaw man loolu laa daan gis. Eh. da gis. bu ñu wàccaan heure bi fa ñu xiif ba avant añ bi da ñor ñuy siimaale wala ñuy mëq si cere ji mbaa cox ah Thiaw waaw loolu de wax dëgg yàlla am na seen dëkk moom. léegi du tee suñu dëkk dama ne daan na xam laa la wax. eh Fatou. waaw yal na leen ku ne si subu juróom. waaw. eh Modou na borom la. ma ne ma ne commencé ngeen wolli mi laa wolli mi. waaw commencé nañu waaw. béyam sunu. Hmm? ah Modou seen nawet bi gaaw na di. kaar fa bëri kàlla. ah. kaar fa bëri kàlla kaar. déet wax ma dama ne seen bi gaaw na laaw kañ nga ma wax. Kéba Jili waaw man kaar bari kàlla kaar. ah luy loolu moom. kuf. ah. man kuf. Euh, Modou bi de wax dëgg yàlla bu fekkee nit da nga koy laaj mu jàpp ne affaire cat la wala affaire catoog nangam wax dëgg yàlla waxtaan bi du ah. neex te man na passé naa loolu maa mag loolu wax dëgg yàlla. kaar kaar ah, kaar laqoon ah, yàlla lu yàlla def si man si xam-xam ñu ànd man wax dëgg yàlla de xam na yoo xam ne yàq der lay niru waaw ah, sa xam-xam bi doo ko jox ñu ànd ak yow ñun soxlawuñ ko sëñ bi. ah a sëñ bi bañ soxlawuñ ko sëñ ah. ab kasaara nga sëñ ab seytaane nga sëñ nga Mor tafsir moo laay woone tafsir Keba Diagne la de wala fa nga tukk si laa jaawale ma na nga tukk si nga naan fa nga jaawale damaa ah. jaawale waaw kon baax na ñu ñëw añ ci wala baax na déedéet bañ ñëw man de ŋaali laa bëgg tey ŋaali waaw xam ngeen ko de ndax miin nga ko nam fa nga ko lekk ba sa bëri génn moo nekk sama kal bi da ŋaali waaw ma ne fa nga ko lekk ba sa bët di wate xam nga ko. li ngeen togg tey yéen. ah. may li ngeen togg yéen tey. doo ko xam sa xel da ji ne nga da ko yàq de. wala fa ngeen fim cere. waaw ma doo ko xam sa xel da ji ne nga da ko yàq. ah moo tee nga bañ a yàq sama der Modou. yàquma sa der. ah déedéet déedéet ni ngeen togg tey ŋaari na ma togg ŋaari yaasa lañ togg wala boog dama raata lañ togg wala nangam. wala wala dara nekk jamono bi ngeen ko toggee wala na. ndax jamono naawetee borom kër du togg loolu dara nekkuti mana boɗon boɗon jiyanaa ko kawno juɗɗen jeppo mbaɗa e nde gaaf ya bon e Modou Ba nañu henndu jam yalla may jam way sen nayi ɓe gawno moom wax dëgg yalla gawno a hum wonno ñettojje a ah, gawno de a koye meɗen sibbu deet bay Modou deet a ah, waw sañelen ndeer deet Modou Modou nayi man manuma te génn man génnuma sama bopp maa yow ko bokk te nga ma te bañ a wax loolu yow ko yamala yow babbu samala ko da nga xëy may xëy ngay gont may gont babbu samala ko babbu samala ko laa babbu ah loolu nga yaakaar. ah loolu. ah waaw baax na gaa yaa ngi fi rek incha allah ku ci soxla ci diggante bi rek bu leen dabee. waaw yàlla nañ dee ñoom ñëpp. ah. yàlla. allo salaamaaleykum.